الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد أغلق القادم ناصر الحق بالحق والهادي صراطك المستقيم على سلام صبتك لك جحمه يتقدم كل مجال سيادي جم تنجلور سخل في أين ارتكي بودي ديوار ما جلي الوان يومي كل نتيجه may ma saame betem xol ma dee ci liimaan fa kuule nañ ci bal ndax ñi ci beekoora rab la nañ xotuñu kon ñi xal ñi ñey gaara nag walloo gën a gaaw comme والوسائق والقنقى والرملني صادقنا يا قليل رحمن ولو احبرم كن لدينا فيكون ساقر باقي قلام قوس ولا دكتور تقول تولي موفر تتمشي دكتور والقط شراء متاقك لو دنيا كذاك أخرى دما صد لوي وانا روك سناس لي تحمد لوي لاني يعني دو قرم فاس سمو كم خليما روك فوز موسى ويدي كده كلتهن عيسى كوي مورد نما يو ويلا سيدي برهام واجو كم مرارين تصبوا بها maamu may ma xamoon kon dinaa mën a way kii bi gën ci soodaan de xut boroo yey naa ni tey diiwaan déglu leen ba ma déglu ci kañ ci gën fii te ëzal kaburu jiitaloon duul barhaama ba nga rootee ba say bagan fees faa waroon nga jëla doon xaar ba seeni nga fees jaay julli si laama buur si jël ko mu wér a jox ko xan mu fay boom su ngeen xamoon ak i may saa yu nekk ngeen teew bañ a lii kër bañ a dii nga da ngeen saxoo waaw ba tuut ka ngeen dafa bul du sellu xar baa wallahi benn sëriñ manu fay wax na dem na daara ma su fekkee xamuloo loolu moo te ak mbaax su fekkee ngay xim loolu doy na far baax bam yore nit yi at laa dajal ba si xoraa te raw ne kuy naa sam ne xat yeewee daaw bam yore arab kuuta la lampu dahraat te jor ay masalam boole kon maqaamaat fan yéeri xat ñu koy xas waaye mbir ma gëm dayaa daal gaynde xiiru dawoo janax yi buñ sabandoor ku gaynde xiiru dawoo janax yi buñ sabandoor ku gaynde xiiru dawoo janax yi buñ sabandoor ku gaynde xiiru dawoo janax yi buñ sabandoor du tax nga daw noppi leen waaye xëy si leen di